waajal ilaahi maskani tuuba misl asmiha bi jaahi xayri man nabaat social safar 1445 ginnaaw gàddaay gi di atum 2023 di liggéey yi nga xam ne commission sociale bu Touba ca kanam mi ngi koy amal ci dëkk bii di Touba ci màggal gu mag gi ngir jàppale néew ji doole ji liggéey boobu boobule door nañ ko ndax am na délégation boo xam ne ci njiital Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah mi jiite commission sociale bu Touba ca kanam àndoon na ko ak délégation bu takku ñu demoon ci prison bu Mbacke ngir yóbbul leen a xéewal yoo xamante ni dafa jëm ci liñ leen di jàppale ci màggalug Touba gi ay bernde yaatu muy àddiyee joo xam ne dañ leen koy jàppale ci safar gi rawatina ci màggalu Tuubaa gu mag gi ngir ànd ak ñoom bis bu mag bi nga xam ne bésub sant yàlla la donte ñoom ci am natu la ñu nekk waaye ñu yëg bu wér ne bésub sant yàlla bi ñoom ci lañ bokk moo tax ñu indil leen bernde yu yaatu yi nga xam ne jébbal nañ leen ko noonee lañ ko defee ci prison bi nga xam ne moom moo nekkee ci Jurbel bi ñu agsee délégation bi nga xamante ni moo nekk ci commission ci kanam jébbal nañ leen àddiyee ji nag toll ci benn nag ceeb bu takku de terre ak dépense ci koppar Manso ñetti fanu màggal gi muy bu ñu nee suba la màggal bisu màggal ak bu màggalee ba ci ëllëg sa lim bi nag moom lañ jébbal mboolem ñaari prison yi muy prison bu Mbàkke ak prison bu Jurbel muy ni ñu ko baaxoo amalee at yi weesu lii nag lenn la rek ci jëf ji nga xam ne commission sociale bu tubaa ci kanam mi ngi koy jëf ci dëkk bii di Touba rawatina ci màggalug Touba gi mu jëm ci social safar képp ku bëgg tàbbi ci liggéey bi wala nga barkeelu ci mën nga ko def ci numéro yi am na Orange Money am na Wave muy 77 914 ay wa leen ñëw leen gaaw jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi waajal ilaahi maskani tuubaaba mislasmi abijaay xayri man nabaat